kumunda kwima dora wale dora wale amula kule wale liga yore ya kumunda kwima dora wale ya izina jigéen jëf naa jibi jigéen jëf naa jigéen jëf naa yow mi nga dëkkal bon la gëmul mu day jigéen jëf naa ñi ngi jooy Robert nii doomu yaayu Babacar la ami faala yi seen yaay da ngeen a gore kenn yabu leen Amen. Bye. su nekkee ay way rek rek rek rek baagal bàyyi ko si ñaar ñi barke Serigne Touba xoolal mais biram biram biram lii la la biram lii la la dina bëgg a dolli boobu waaw wuyu leen rek biram lii la la dina Viviane daal la à part tarba nga ensoleillé ak maa la ko wax Viviane rek la. Mhm. mais Viviane dañ ko bëgg rek. wooy ko wooy bu rëy bii mhm. xam naa ni kontaan na ci ndax léegi la ma woo téléphone. Mhm. te war nañoo gisee incha allah. su la gisee nag compal ma. <laughs> Eh, intention wooy bi lan la. intention bi mooy bëgg ko te yàlla rek rek gis li muy def Sénégal ak way yi neex yi muy way ma bëgg Viviane di déglu ay woyam. senti aussi dara mu nekk sama fan dama ko bëgg. Hmm. Viviane bëgg ko doomu morom a. parce que Seydina moom ah ku ma ci mere yaa xam Viviane dama ko bëgg. kan dama kan produire album ah. kan produire kan produire biram. produire allah. Seck jërëjëf ma nga ñu neex produire parole allah ñu bi bi yaan ndax. xam trophée yim fi jël. Mm-hmm. allah sonn gi mu sonn ci aram bi ak lim ci daj programme yi nga xamanteni da koy réussir macha allah ñu xam jigen du man goor góor la. Viviane jàmbaari fak teud la ñu way ko. dafa melni da nga xamone ne day indi ay trophée. waaw waaw waaw dafa tombeeg moom sax. mais mais mën nañ xam euh, fitri bi nga euh, aw bi nga xam aw nga ko tarba muy sama yaay. bu hmm. do lo xam ne sénégalais ñu ci bari bari do to tarba welul ne sax mais ñu ci def ko def attendee jeew te liñ ci ko dafa nice bu bëggoon xam projet bobu nan nga def ba ba nga and liggéey koy ñaax. non tarba sama rakk la nit ku bax la daf ma ci sant rek comme ni artiste santire moromam mu woo ma ma jàppale ko bu baax macha allah mais yaa ngi moom mi ngi doon dëkk bi de waaw bii nag moo koy raw mën nga xam kan mooy sa idole ci ci musique Viviane la Viviane hmm. ak Youssou ñooy sama akinalam akinalam mam bamba akinalam moom titi mën na way de torop mën na way ñëpp mën a way léegi waaye nag yàlla mooy dogal ma bëgg bëgg ma ma bëgg fi bi hidupnya titi daa mën a way biir yaa fi bàyyi dafa si ma ne ñoom mën a way ñoom mën way dara ak rek lañ ci ah titi barke la famille ah en tout cas dafa war a boole. xam nga musique tey jii mooy li may wax toujours rek fii ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. donc li ma naan woykat warul am noonu woykat waruñu ko utal noonu parce que woykat yépp ñoo bokk ndey ak baay que da ngay jouer sax di mm. personnes personnes donc tout le temps li am solo ba am solo dara c'est important mm. parce que musique kenn amul faire Image par exemple à ça fait bientôt un mois et demi biram ñu studio mm. un mois et demi donc nous ngi ci presque 18 morceaux donc mu nek ñaari album donc yo xamné album traditionnel la parce que mag ñi soxla woon nañ traditionnel ah. delloo ci demb ñu ci rendre hommage aussi ku melni sama papa aladji Njaga Mbay ah ñu ci rendre hommage ku melni ni Toumane Jabaate mhm. from Mali hein ñu ci rendre hommage ku melni ni mhm. donc amna ci ay surprise yo xamné man warumako sax wax mais bu nexé yalla xamna né que début décembre mhm. dinañ génné album traditionnel. incha allah incha allah rabi suñu toogee ba mu wóor na ne que gars yi neex na leen mën naa leen may vingt jours génnewaat beneen wit ah donc lépp mu ngi dépendre rek ci nga xam ne ay fansu Ami Collé ak Birame la dañ doon xaar Ami Collé ak Birame donc ñu indi aussi tamit démb donc ci côté cosaan ah, moderne album moderne ak album traditionnel donc je pense que nene que lii mooy mhm. donc nous euh, nañ ci liguey bu am solo en tant que musicien mhm. mais nak bi am solo moy mhm. koy donc yi ñun dañuy liguey jox leen ñom ñoy donc je pense que nene que que Ami li mu way moo ko mag moo biram yëpp li ñuy pare nii moo leen mag. mais est am na am na tamit événement boo xam te ne moom moo koy accompagner. non bu neexee yàlla nañ préparé grand théâtre grand théâtre. Mhm. parce que Ami da di ndaanaan. Mhm. Mhm. donc peut-être que nit dina tolloo benn moment boo xam ne ne que que ça soit muy man que ça soit muy moom que ça soit muy keneen. mën ngay stand toog tuuti. parce que aduna la mais après so ñëwaatee rek say fans yi lay bëggee dinañ la gis ci yeneen facette manam parce que aduna lool la aduna ak lool mo ànd man mi damay tollu ben moment bo xamné ñu bari dañ nan pourquoi ma gëj a dara mais je sais très bien que bi sama yaay ak légui à part sama album international ay single la fi génne donc je pense que légui nak mom Ami Collé ak Biram aduna mm-hmm. dañ ko bëggoon Ami Collé Biram Biram Ami amna ben benn morceau bu tuddu Ami Collé Biram Biram Ami Collé mm-hmm. donc je pense que ne nekk nag dinañ leen ko jox mais nit ñi tamit bëgg nañ di len fekk tamit yenn bërëb yo xamante ni ñoom ñoo ngi koy joué si mais parce que pourquoi pas amna ay héritage amna fenen amna fenen amna fenen amna fenen soy xol tay ji ñom liñu tey lancer morceau Sénégal la tuddu donc Sénégal wa waaw donc nga gis na nek que Sénégal aduna bi ñu gars yi ñu koy bëggee mm-hmm. xam nga gaay ngi ci loolu légui le reste mooy